moom ba muy tontu dafa ne képp kuy xalaat lii mooy ni yaa ngi bëgg a réew dugal réew mi ci guuta teg ci it ne ñii wane nañ ni bis bu ñu leen joxee ci réew mi ci guuta lañ koy dugal ndax kuy xalaate noonu di fas yéene jëfee noonu euh, euh, euh, bëggoo réew mi donc loolu indi débat ci espace public bi ndax war nañoo mën a egg ci monnaie boobu am déet ñun ñu jàpp ni lu baax la débat bu mel ni ñu installé ko euh, ci candidat yi ci geneen weer yi gis nga. ku mel ni ñuy méngale seen programme exactement ki mel ni Boubacar Camara moom waaw il a appelé de tous ses voeux que ñu am débat national boobu ci biir candidat yi pour que ñu mën a jonjonte ci gis-gis yi euh, nga xamante ni uute na euh, jamono ji daal. Pa Moussa. waaw. ci programme mu. ils ont tous les deux raison dans cette affaire là. Hmm. ci histoire monnaie bi. ñoom ñaan ñëpp wax nañ dëgg ku ci nekk da ngay xool ci ban position nga taxaw euh, actuellement nii Sénégal ni muy doxee euh, Amadou Ba wax waxu continuité euh, continuer système bii nii avoir suñu propre monnaie catastrophe la parce que c'est c'est très sérieux quoi la question monétaire mm. dëkk bii nii nii mu mel nii maanaam ñun état da ba daaxe lañ ñun lu bëri des na euh, lu bari c'est-à-dire même imprimer ay bulletins de vote sax c'est un problème au Sénégal yeah. organiser élection ñu ngi ci pendant combien de jours parfois ay yu ndaw ay détails yu ndaw au peine à l'avoir c'est-à-dire assurer sénégalais bi euh, mu am euh, service euh, sociaux de base problème la dëkk yu am problème mu ndox ndox dëkk yoo xamante ne problème bu faju nga jël problème comme problème monétaire ne leen battre leen monnaie je pense que ni Amadou Ba euh, li mu wax noonu euh, dans la logique bi station bi Sénégal nekk wax na dëgg alors euh, li tax aussi la coalition Diomaye président aussi li wax dëgg moom mooy ñoom il aspire à une autre forme de gestion étatique ki demande plus de sérieux ci économie bi demande plus de sérieux ci ni réew mi di doxee pàcc par pàcc parce que du du du sevrage bu brutal. ok process la te problème bi en fait. Euh, te yéen ñaa ni ngeen jubóoyee dara oh, neexul. Oh, man ci la toujours di problème bi du ay <laughs> franc CFA franc Aliou Sow franc Pa Ousmane Cissé non non problème bi du appellation bi. Mhm. mécanisme bi ci boppam parfois moo dul baax. ba pare jël loo xamante ne lu ci am solo yóbbu ko ci euh, fenn mu denc ko fa garantie. et réserve yooyu noonu alors que fii tout est problématique alors donc loolu. Euh, on le disait hein euh, pour la souveraineté monétaire France dégage oui. pas CFA dégage mais France dégage dégage de notre conseil d'administration dégage ci usine ba nga koy liggéeyee dégage ci réserve beeg nangam en fait euh, li ñuy wax ñun euh, euh, souveraineté la dëgg-dëgg sur le plan monétaire mais loolu day fekk nga am état bu dëgër tamit la preuve euh, Ahmed bi mu defee échappé solitaire am bi. non non tey c'est pas normal il parle pour dalasi buñ sañoon Gambie am CFA boo ko weddee demal Gambie jox ma CFA ak jox ma dalasi moom mooy loolu. Mm-hmm. Euh, Mauritanie euh, et tant d'autres donc kon question bi du du loo xamante ne da dañuy tandu di wax du loo xamante ne da nga yeew euh, ci benn euphorie wala benn populisme programmatique rek teg ko foog nga dëgg-dëgg les bànqaas yi defar état yi téye état nga defar ko ba mu dëgër. sa économie tëgër. balaa ngay dem ci balaa ngay dem ci balaa ngay dem ci loolu. te pourtant coalition Diomaye foofu la njëkk a woote avant de parler de ça donc préalable li effectivement boo dégloo. ku mel ni Balla Moussa. foofu nga lay wax quoi Diomaye xëyul ni. non non dañuy changer monnaie bu ñu bu ñu jotee kii bi. waxuñ loolu de waxuñ loolu de. waxuñ loolu attention il faut expliquer ça non choisir la question juste. waxuñu loolu c'est-à-dire c'est-à-dire. nekkuñ sax ci période. boo boo boo tëbee rek ne monnaie bi. ça pose problème. c'est-à-dire la coalition Diomaye par ci benn processus. Mhm. am yu bëri yoo xamante ne def nañ ko ko te loolu euh, je renvoie gars yi ci euh, Balla Moussa Fofana livre bi mu mujjee génne. Mhm. la ci wax. Euh, non day gudd. parce que la question monétaire. du du du lu ndaw quoi. du lu ndaw donc te te te gars yi xam ne aussi coalition Diomaye président waxuñu lu ndaw. déglul projet bi xool ko en profondeur en fait boo boo boo koy li profession de fois la lay gën a jox mais foog nga delluwaat ci ñuqu programme ba mooy jot na en fait loolu la ñu réajuster rek mais am na détails yu bëri yoo xamante ne foofa nga koy fekkaat et que allant ci livre solution Ousmane Sonko di nga xam ne processus ba ñuy wax la pour mu yegg ci maintenant ci souveraineté monétaire parce que franc fa saa waay euh, dafa plombé suñu économie moomuñu ko. Mm-hmm. moomuñu ko léegi rek la ñuy wax euh, communauté financière xawma lan mais euh, la signification euh, c'était pas ça ouais. voilà colonie française d'Afrique d'Afrique donc kon France moom moo ko moom France nag moom nee na la moom amul xarit intérêt la am hmm. kon lépp loo xamante ne kii na ci intérêt am la ci njëkk xool xool d'abord pourquoi taux de change bi fixe loolu loolu rek problème la ci monnaie moo tax même ñuy théoriser ay euh, monnaie virtuelle les bitcoin ak yooyu noonu c'est-à-dire ils ne peuvent pas comprendre comment naka la xaalis bi war a fixe taxaw ci biir statique quoi donc kon France intérêt la moom ñu téye CFA intérêt am la moom d'abord ñun lan moo ci suñu intérêt dedans. Hmm. d'accord donc kon effectivement am na ñoo xamante ne yor nañ seen monnaie te dem nañ seen yoon yoruñ CFA dem leen seen yoon. ñeneen nag ñeneen du coup. mais France euh, bokkatul ci conseil administratif bu BCEAO. dañuy loolu la ñuy wax rek mu ngi ci de. ñu ngi fi il faut qu'ils soient parce que c'est le monnaie bi c'est arrimé par là. par euh, voilà arrimé à l'euro donc euh, à te bul fàtte ne c'était arrivé au franc CFA d'abord ñoom def nañ évolution monétaire ba pare bëgg ñoo tëgiraat ci mais donc mënul nekk kon foog ñu jéem a xool naka la ñuy def ci sunu propre souveraineté monétaire am mais processus bii lay jiitu du tëb rek yeewu rek ne CFA bi dégagé ñu tàmbali non du demee noonu bu boobaa. mais mais mais qu'est-ce qui explique que le Ouguiya est plus fort que le CFA. demal nga jox leen ko. qu'est-ce qui explique non je dis quest qui explique que Ouguiya moo gën a fort CFA. je ne comprends pas non man comprendre lu ah. ma gënul fort de nu ko gënee fort. fu muy jaar. Hmm. non. non c'est-à-dire. Euh, ah, man de man de dem man de dem naa Mauritanie hmm. man de dem naa Mauritanie sérieusement euh, ouguiya bi gën a forcé faa bi sérieusement après man j'ai pas compris. non gënu koo for rek ah c'est-à-dire euh, CFA bi moom man jàpp naa ne ça asphyxie notre économie c'est d'abord l'intérêt supérieur de la France d'abord parce que ñoom bañ koy def xam nañ ne lépp lu ñu def seen intérêt moom moo lañ ko tax a def donc. bu ñu chercher de midi à quatorze heures chercher d'abord la France avant de servir. paasa. la monnaie unique. la monnaie euh, ci wàllu Sénégal ak ak francophone damaa mës a ànd ak ñi wax ne sunu monnaie bii nga xam ne moom la am di CFA. baaxul ñi wax loolu ñëpp dama d'accord ak ñoom la monnaie. française bii nga xam dañu ko teg suñu kaw dafa war a jóge si suñu ay mbir ñu defal ko suñu bopp mm. gérer suñu bopp li si nekk rek moo di ne il va falloir nu pour egg pour def ko ni ñu eggee il faut du génie mais il faut surtout te loolu dama dégg sëriñ boobu di ko wax mu important mooy une indépendance financière donc économie et économique démb Aliou yi sëriñ doon wax boo maanaam tey lii laa permettre nga taxaw ne ne sama xaalis dama bëgg sama monnaie bopp day fekk yow nga nga yore garanti ba garanti ba te garantie li si jiitu garantie li si jiitu mooy souveraineté économique mooy sa dëkk nit ñi di dund dund normal di gérer seen bopp mel ni Russie bi nga xam ni ba tubaab bi ñëwee tënk ko am fu ko teg dafa ne léegi sax yéen lépp li ngeen day jëndee sama rouble bii ngeen kaa jëndee nga dem dans un autre sens donc loolu c'est capital maintenant que que que mu nekk ci programme Diomaye mm. euh, il va falloir que bu bu bu bu bu toogee mu xool nu mu kaa defee est-ce que dina ko mën concrètement question la